fo jonde hani peng ita ben jol ben to jolaji o ka ke nyaati ibi da sim card ji sono e ko fa ngoyta e telefono gala de e fa ngola bita ni bita hmm. ya id card sama biometric id card kutama kutama da de hmm. wala passport hmm. wala eh, voter card wala driver license ni lu ndala muti bankola sidan kay don bewlu ja aliens card wala ila banko me bota ja passport ina wada mala bita jor seje teng pri o oh, kuma ayata ba maringe na ndafana ni na dimbali be sirgistano nyin ko bare kukulen be e ko momo moolu ni bolo regista no la neto ko neto aɗo ni ɓe momo regista la i salon de nima lom aye feŋ o feŋ ke itele tam aɗo sidino regista no mema sañi tannin seyo si fo jannaka sañi tannin seyo so anin keɓa kotol men ɓe suo kono kaydete bulu i siwol ɓe sama mairol nin keɓargol ɓe aɗum fana aman jere banan nan dambila kana jam iɓe dawaɗa itu jebina e batar laje iɓe intere la cew alhamdulillah ngen la jogeni waaw e nak sen filu fi xew moy sim card registration mbooleem dooree koo gamsel line nga amee afisel comium ba kiwsel nga registré sa soo ko am na looy yóbbu de mooy lan da ngaa sa passeport ah mbi sa ID card ID card bu es bi laa wax de biometric ID card ah driving licence ak sa voters card wala su fekkee doo waa dëkk ba sa alien ID bi wala sa passeport yi waa dëkk ba amul fay amul fay free la free amul dara looy moom neex na waaw su ma jaamee waaw ngay wax ni lu am solo la de mhm. ndax man a suma njabooti mun nañu register network bu nekk mun nga register juróomi nit te juróomi nit ñooy mooy maire yeeg paa ñoo xam ne amuñ kayit wala xale yoo xam ne amuñ eighteen years mun ngeen a register waaye sooy register tamit nga seet koy register de soo register koo xam ne mu ngay jël sim card di fa def dara lu ñaaw yow la ñoo jël si su boobaa nag nga xam ñi nga register maire yeeg paa amuñ kayit ñoo xam ne xale yoo xam ne amuñ eighteen suñu amee eighteen years ñu dem register seen boppam su ma jaamee jërëjëf jërëjëf jërëjëf Birane xanaa lii mooy may gu njëkk gi. waaw yow ah. jaaxle rek ma taxaw taxaw fi ma nekk nii waay. lu la ah, jaaxal war a yóbbante suma njaboot gi sa Sénégal. waaw ah foo ci dem rek. Ah. mu cher cher goo xam ne. yónnee xale mu ñëw fii sax. moo gën a yomb loolu. ah laa ilaaha illallah nee naa la kaay ma lay gindi. waaye gindi si la di yëgal. di la wax li xew ci réew mi. comme poste bu Gambia. ak la poste. ca Sénégal ñu def money transfert. pour yéen mi ngeen xam ne. da ngeen am njaboot Sénégal. war leen a yónnee. ndax xam nga. lii soo ko yóbboo feneen. billaahi nañ laa caaj. dafay dem ba nga ne sax. nga fayal xale ba ci moto Sénégal mu ñëw fii. moo koy gën a yomb. waaye gam poste lu ndaw lu ndaw lu tuuti lu tuuti lañ cay jël. su ma ko yónnee fan la koy jotee. dama ne foo dëkk rek la poste sa boor boo nee gis nii rek la poste ne nii nga ne Gampos ma yónni la poste taw nane dem ma walla Gampos. Rocky mi roki Gampos jox la. ñëw dugal xaalis bi Rocky mi rokam la yónneel ko ko Sénégal Rocky mi rokam te njëg gi dafa bax nak mané roki mané ma ne dégg nga li ma la wax fa dama la ne yónnee ko fi mo gëna a neex nga yónnee ko fenen motax mané sénégalais sénégalais tout résident en Gambie venez voir Gampos pour envoyer votre argent ou au Sénégal. réew Gambie jox leen dé Gargoz defati na ko defati na lu baax ci ñun koo xam ne yaa ngi am mbokk Sénégal wala ngay sénégalais bu dëkk ci réew mi fii tey bu ko yónnee sa njaboot bul sonnati bul tàyyeeti bul demati fenn waaxul daagu ñëw ba Gampoos foo dem ci réewu Gambie fii am nga fa Gampoos nga dugg ne ndaw si mu ngi nii xaalis baa ngi nii Sénégal laa koy yónnee kii laa koy yónnee nii la tudd fële la dëkk.

mungu ah, ah. Just Our Entertainment Center is the place to be. Friday, 3rd February 2012. Performances by by the Holy Family Band. Friday, February 3rd, 2012. Be there. Jollof Tutors. Where every student is a tutor and every tutor a student. Jollof Tutors, simply the best in professional training. service bi mu may jox dëgg dëgg doy moo tax rek laay def. nañu. ne Jaraaf am nañu mu ne Express am nañu Ria Banjul ba koy na ah bokk. ah Yakhya Ndao ah yow fan yaa ngi jabaay ji ji. ah waaw ah, ngi nii essay ji. ah te nag papa. Ah. maa si biir Gambie fii. Ah. ma di leen yëgal ne leen. képp képp ku bëgg a yónnee xaalis. si biti. mbala nga a jël xaalis. maa ngi lay digal ne nga ñu usaay ji fii ndax uh-huh. seen liggéey gaaw uh-huh. uh-huh. te janj na te nag léewu léeg am ay neexal yu ndaw yu jël si suuf seen seen customer efay ca kaw ca kanam yaa ngi tax a jooy dorooñu yaa ngi asuma ah dama ne lu neex rek a neex billahi lu neexul góor ak jigéen ci biir réew mi joxante loxo lu bees juddu na ci biir réew mi lan a juddu dimbalante lan a juddu lu ñuy wax club foire club foire ci biir réew yi Gambie gii kañ la juddu ba mu juddoog léegi mu ngi am juróom benn weer lana ko tax a ñëw dimbali ñi nga xam ne ñooy liggéey nekk ci suuf mu dimbali leen nag ba ñu jëm ca kanam dama ne club foire oote na lan la oote fundraising kala diina ak lan façon show bi mooy njëlbeen nag ñu koy def kañ lañ koy def nag amoon ci weeru février 2020 fan lañ koy defee Kairaba ba bi hôtel lañ koy defee mu ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu waaye kan lañu oo kan lañu oo géwél Diouf ca Dakar moom lañ oo ànd ak tam sàmm suusoo mii way mu neex ci biir réewi Gambia fii dama ne toog rek seetaan lekk ma suur naan ñaata la platinum forty thousand gold thirty thousand silver twenty thousand waaye nag dugg a biir rek toog seetaan di ticket bi thousand five hundred la kon nag lépp loo xam ne club foire am na ko ci lii daf koy jël nag yóbbu ko ca Labour Ward ba ak Royal Victoria Teaching Hospital dimbale leen ko waaye mu ne damay jël nag la fa am yóbbu ko ca fan opération Save the Baby bi nga xam ne fii nag suñ kilifa gu baax gi First Lady moo ko taxawal ci biir réew mi kon Kolop Fuad jóg na jigéen ak góor jàppale réew mi ci Gambia réewi Gambie jóg leen na ñëpp dem fukki fan ci weeru février ca Kairaba Beach Hotel juróom-ñetti waxtu dina xumba dina neex Kolop Fuad a ma ne ku bugg a demal baax ba ba dee lay def ci yéen cey Kolop Fuad ci biir réew card registration man sa ko mo moy sim card register brin gam sel lembang après sel lembang commune qsel il faut eh, yabe register bo jote hani peng ita ben jol ben to jolaje o oh, ka ga nyaati ibi sim card registration e koy fangoy da telephone kala de e fangoy bita ni bita ya id card sama biometric id card kutama kutama da da yer hmm. wala passeport hmm. wala eh, voters card wala driver license ni lu ndang la muti banko la sidan kay don bewlu ja aliens card wala ila banko me boda ja passeport ina wada mala bita jor seje teng free